pour le peuple sénégalais Ablaye merci gars yi na gars yëpp calme pas de violence ça c'est une fête pour le peuple sénégalais ñu def ko ci jàmm merci Assane Seck ñoo lank un combattant aussi waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar dañ leen nuyoo rek nañu ànd ak dal te gën a boole doole yi ñu jàmmarloog Macky Sall parce que daf ñuy abal jërë ngeen jëf merci beaucoup merci beaucoup félicitations à ñoo lànk ñoo bañ ñoo lànk ñoo bañ xam nga Macky Sall gaynde guy nelaw la ci palais ci palais bii mu nekk gaynde la ne day nelaw ci pale bii mu nekk même pas trois mois kon muus buy nelaw ci pale bi ñu nekk même pas trois mois dafa taxawoon ne Sénégal ku ko a taal moom ngay jàkkaarloon tey fii ñu toll mu ne day am ne amnistie ñun soxlawuñu amnistie ñun soxlawuñu amnistie ay doomu jaabur la tëj ci naka sulul noonu daf leen a war a bàyyi ci ni mu gën a gaawee beneen bi ci des man damay ñaan ndaw ñi ku ci am sa carte nga dem jëli ko parce que dara appul ful la carte électeur fi ñu toll nii ñi ngi leen ci ay coow ak ci ay wax te ma leen di ñaan fu laay ut am la fu laay am téye la mbooloo mii ñu am nii tey nañ ko jàpp téye ko te xam ne lii moo mën a sauver Sénégal ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam jërë ngeen jëf. alors euh, représentant wu aar suñu élection ñu ngi lay woo nga jege si ñu ngi lay woo nga jege si bu dee yaa ngi fii en attendant ñu jox kàddu gi l'éminent le journaliste le grand Mame Birame Wathie le journaliste le pertinent Sénégal soxla ko muy wane saa su ne xam-xamam waaye it di wax dëgg ci ni ko sénégalais bëggee Mame Birame Wathie salaamaaleykum mbokku Sénégal ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi waaye laaj bu ma bëgg laaj laaj boo xam ne sax xëy na xam naa tontu bi waaye dinaa ko laaj ndax ñi nga xamante ne ñu ngi fii ñu jàppale ma ci tontu bi. laaj bi may bëgg a laaj mooy ñun ñi taxaw ci naaj bii depuis 15 heures xam nañ lu ñu tax a taxaw est-ce que ñun ñi fi nekk xam nañ ñu ñu fi indi. senegal 18 millions de sénégalais la ñu wax ne ñoo fi ne ci 18 millions de sénégalais yooyu kenn rek moo ci waat. kenn moo waat ci de sénégalais yooyu kooku waat lan la wax mu ne constitution bu Sénégal bu doon ci diine dañu naan alxuraan bu doon ci diine l'islam ñu ne alxuraan bu doon ci diine katolik ñu ne bible ñu ne constitution boobu kenn ci Sénégal moo waat ne dina ko sàmm. ñu ne Sénégal kenn moo wax ne dina garantir sénégalais yëpp topp ci constitution boobu tey bu ñu dajee fii mbokk Sénégal dafa fekk ne kooku waroon na sàmm constitution boobu daf ko mujj salfaañe mu mel ni rek ñu nekk di julli jékki-jékki bëgg a féete sow est ne di féete saw pour jiite ñu moo tax ma ne ki nga xam ne moom la ñu dégg ba salfaañe ko sénégalais yëpp dafa war ñu taxaw ñu ne ko jëlal benn date boo xamante ne nii xëy na sax du woon sa cër danga nga waroon a waxtaan a ñeneen ñi au lieu mooy encore salfaañe constitution bi parce que ñun ñëpp xam nañu ne wala ñu ëpp si ñun xam nañu ne article quatre-vingt-douze bu constitution bu senegal dafa wax ne conseil constitutionnel lépp loo xamante ni tënku na ko ci loolu la ñëpp di taxaw Macky Sall woo ay paawam woo ñoo xamante ni depuis Senghor ñu ngi fi woon woo ñoo xamante ni depuis Abdou Diouf ñu ngi fi woon ne leen kaa leen ñu waxtaan ñu xool naka lañuy ñuy salfaañee waat constitution bi maanaam naka la def ba ñëwaat ci li conseil constitutionnel wax ñu ne ko nag Sénégal moomu loo ko Sénégal yow ak marchand ambulant bi yéen a ci yem Sénégal yow ak maçon bi yéen ci yem bu sa mandat jeexee da ngay dellu doon citoyen comme ñëpp te bu doon citoyen comme ñëpp dafa war a def li nga xamante ni moom la askan wi bëgg maanaam fixer élection lu mu gën a gaawee bu nekkee ne nag dafay yeexal wala mu ne day daagu pour def loolu Sénégal dinañu continuer di mobiliser woo nii pour pousser ko à mu respecter constitution bi leen sant di leen gërëm jërëjëf. alors euh, ñuy annoncé imam Ismaïla Ndiaye bu aar suñu élection aar élection lëkkaloo ak FDD FC 25 daal di nag teg kuréel gu ñuy woowee fond. de la résistance nekk nag lu am solo tey a rappelé que front de la résistance moo woote waaye du FDD du F24 du aar suñu élection dañu booloo def benn say tous contre le monstre aar suñu élection aar suñu élection aar suñu élection mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen bi di wax ni lii sénégalais bu nekk war ngaa jóge ba nga nekk ñoo fekke si lii ñi ngi fàttali Macky Sall ne ko nguur yàlla moo koy joxe qul illahumma malika almulki tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha yàlla mooy joxe nguur yàlla moo koy nangu bu sa nguur jeexee nangul ni jeex na nga dem te bañ a yàq Macky Sall daf ñu interpellé ci ñaari anecdote bu njëkk bi mooy ñaari rakkay tabaski di juróom-ñaari kàbbar bu njëkk bi ak juróomi kàbbar ñaareel bi kàbbar na juróom-ñaar kàbbar na juróom nee na du dem na rey xar mi nag ndax bu reyul xar mi tabaski bi yàqu moom Macky Sall waxaat ñu jaadu nafsi ni ci Abdou Diouf dafay jaadu nafsi ci Ablaye Wade ba jox ko lengay ci yoon Ablaye Wade def ko ci moom ba jox ko lengay ci yoon moom it ko def ba jox ko ci kon wut ci yoon Macky Sall bul yolleeku Macky Sall bul yolleeku Macky Sall bul yolleeku yolleeku mooy jeexal doo organiser élection ba dem bàyyi réew mi yàmbal ak loolu kenn jiwuloo ko kenn jiwla loolu kon nag doxalal li ngay doxal organiser élection balaa le 2 avril jébbalal leen ngay 2 avril jébbal ñu war a fet Sénégal am jàmm Sénégal jëm kanam vive la République vive la République vive la République jërëjëf. Alors, euh, à rappeler que...